bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu ci turu ak ndigalul al Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam lil muridiyya ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér naa li mu am ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mottali ko ñu ko bëggee kon ci ndigalam dañ fi ñëw tey jii ngir jéem ko fee wuutu ndax mënuñ ko ngir xoolal ko liggéey bi fi mu toll. kon ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ci weeru tëdd yi keroog ba sëñ bi tegee xeer wa ca bu njëkk ba benn yoon laa fi dellu si waat te maag sëriñ bi ñu ànd kenn mooy bi liggéey bu mujj kon loolu defuma ko rek ci eh, ne dama amul jot ndax liggéey bi moom xam naa ni ko gën a ñëw ci lépp waaye nag doyloo bi moo ko ci doyloo moo waral ma. boobaay léegi maa fi dóor di si waat kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom rek li ci liggéeyal yàlla ji daje feex day cee ngërëm moom mboolem bokki teel bi nga xam ne ñoom laa àndi liggéey bi ndax loolu yoonu soxla woon na ko lool ndax dana yombal liggéey bi dana ko jàppandal kon ci turu sëriñ bi rek ginnaaw buñ fi agsee ñëw fi ak mbégte rëy ndax liñ fi fekk. mooy loo xam ne kawe na suñ jor ndax euh, kenn mënutoon a xalaat ne ci diir bu gàtt bi liggéey bi dina agsi fii ndax motagul at te gis ngeen bâtiment yi ni mu yëkkati ko fi mu àgg kon loolu dañ ci sant bu baax baax indi ci mbégte mu rëy ndax sëriñ bi liggéey bi da ko itteel te ñor ko mu wax ma ci ay kàddu ci ci wét wax ma ci ay kàddu ci biti kon loolu euh, ndegam moo fi desoon ci naari sëriñ Tuubaa nag kon day mel ni yitte jëpp dañ ko war a jël jëmale ko ci kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp fi tàmbalee cant gi nag ci euh, waa Touba Masoro bi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Ka moo ko jiite ndax liggéey bi jaar naa fa xool naa bitim yëpp waaye lépp liggéey bi dëppoon naag ni ñu ko séntoon wala mu ëpp ko kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax ci turu Serigne bi ndax yaakaar rek moo taxoon Serigne bi dénk ko. waaye nag niñ ko séntu woon àgg na fa di gërëm itam waa Touba ci kanam ñoom ñi nga xam ne ñoom itam dem naa ci seen bâtiment ba biñ leen ko joxee léegi yàggut waaye seen jitte ak seen positif ndax ñoom itam jël nañ benn bâtiment ci majaalis bi du ko tabax kon ñoom itam ñu ngi leen di sant ci seen positif ak seen taxawaay ci niñ koy defee ci mboolem liggéeyam Serigne Touba bépp di leen ñaanal bu baax li nga xam ne yéene nañ ko jëfal Serigne Touba ci dëkk bi. ci ginnaaw Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na euh, suñ borom kàttan na leen waaye lépp ñu àggale ko di gërëm itam kuréel bi nga xam ne ñoom itam euh, yàlla dafa def suñ borom dimbale leen defal leen xéewal ñu koy delloowaat yàlla suñ borom di ko sant Serigne Touba ndax i'malu aala Daawuda shukran ak jëf ak cant diis ko wax ci lam waaye cant diis ko jëf kon ñoom itam bu leen yàlla defalee tawféex defal leen wërsëg ñu delloo ko ci yàlla delloo ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa ñoom itam gis nañ liggéey bu fa mu toll dal na ma xel bu baax ñu ngi leen di gërëm ñoom itam di sant di ñaan ñoom itam ni ñu fas yéene ànd bi ci liggéey bi yàlla na suñu dimb dimbali leen ba lépp mu àgg euh, li ñuy wax taq di mu mu taaxir rek moo mooy Serigne Cheikh Bakim Cheikh moom itam. dem naa dem ngeen ci bâtiment ba wër nañ ko dem nañ ci jàkk ja dem ci centre de santé ba moo tax ñu koy sant bu di ko gërëm wax naa ko léegi ne ko da nga am tawféex ndax tawféex gi mooy Serigne Abdoul Hakim ku ko xamoon xamoon diggam Cheikh Mouhamadou Mountakha wóor ma ne bu fi kilifaam di Serigne Abdoul Hakim dana taxaw di ginnaaw Serigne Mountakha taxawaay bu nii waaye nag moom itam yàlla def na taw tawféex ci moom ndax taw tawféex ji mooy mbirum Serigne Touba ci pëstéefa lay rawatee yàlla defe ko tefeex te xam naa ko bu baax ndax ñoo bokk noonu ne ci kër Sëriñ ci daara yi waaye yooyu benn melokaan yi laa ma sax ci moom kon moo itam pëstéefam ak jomam ak xam na waajuram doon bëgg-bëgg mu gàttalu ko ci ñu koy sant moo bokk taalibe yi topp ci ginnaaw ànd ak moom di ñaan ak ñëpp daal liggéey bi daal ni ñu ko tàmbalee nii te rafet njortu ci ne balaa déwén dana fekk ay di fi jànge yàlla na ko suñu borom mottali te dal nañ ci xel itam ndax li ñu fi gis xam naa bu ñu doxaatee ay weer dana ci ab bâtiment yu nopp yu ñu mën di gërëm yi nag ñi nga xam ne ca tàmbali liggéey bi muy Thiaw Kandis <coughs> rek ñoo ñoo ci newoon ak Ibrahima ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci liggéey bi euh, di ko taxaw ànd ko commission technique bi nga xam ne Serigne Mame Thierno moo leen fi teg ndax am na ay ingénieur lu ma ñett lu bokkut ak bureau contrôle bi koy taxaw ay techniciens yoo xam ne mën nañ ñett wala ñeent moom itam ñoo xam ne dañoo sax ci barab bi ñu bokk ñu ànd ak ñi fi bàyyi euh, ànd ak architecte bi nga xam ne mooy saytu liggéey bi di xool ba xam ndax lem rëddoon xalaat ko mel ñoom ñoo seeral seen bopp lu ci ne ci liggéey bi norme yi leen waxoon matal nañ ko kon nag ñu ngi sant ñëpp ku ma fàtte rek euh, nga xam ne rek li am solo mooy di jëf ngir yàlla jëm si Tuubaa الله وكفى بال... وكفى بالله شهيدا سيرين توبا نك شيخ عبد الرحمن بارك الله وحنا جيس بي دا فا نيه لو واي جيف غير موم رك خمنا كو كون نك سومب يي موم داي داي داي داي داي داي داي بوك سي ليغا خامني رك موم لا القران دي وحني إن الأبرار يشربون من كأش كان مزاجها كافورا عينا يسب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بنصر الشيخ عبد الوهاب بما يسم بسم بيغنا ku fi dugg xam ne xol ba réew na Cheikh Mahamadou Mountakha bi mu agsee yóofoona bi nasri ja ci la tàbbiwaat mooy xam ne lii ba ay ay téeméeri at dañ koy jëriñoo noonu la kilifa war a dem yóofoona bi nasri wa yaxaafoona yawman kaana sharruhu mustatiran wa yut'imuuna ta'aama ala hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran innamaa nut'imukum li wajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an wa laa shakuuran kon loolu rek mooy da ci am solo di jëf ngir yàlla di seere yàlla di jëf ngir Sëriñ Tuubaa te xam ne Serigne Touba kat képp ko koy jëfal ku ne waxoon na ne lu waaye waay defal waxoon na ko sëñ Massamba Diop Samb ne ko dana ko Massamba mbaa xam nga ak Dame Sane la Dame Sane mooy Serigne Touba mu ne kon de Mbàkke ñu fas yéene lu accès jàll ci sëñ ne ko loolu de képp koo xam ne def ko ko danaa la ko dencal ba fa nga xam ne kenn mënu fa am amul diw nee la mooy dénkoon lañ li kon nañ xam ne li ñu jëfal Serigne Touba luñ ko luñ koy dénk rek la dénk gi nag ñu noppi nañ ci la pay gi ne ci loxoom dina kon nag ñi ñu soññi taalib bi yëpp ni ko sëriñ bi santaane ci bi ñu woote màggal gi ni ñu tàmm doon liggéey bi ni ñu ci soñña taalib bi suñu tubaay lu ci waay jëfoon ren na ko fàtte te gëm ne ci déwén ci la sa aju du faju li fi liggéey bi àggut ba ñu jébbal ko sëñ bi ba sëñ bi santaane waat leneen na xam ne ab taalib bi nopp ndax euh, taalib bi suñu tubaay suñu borom defal leen li gën a jafe بيخل لي ورسك نحسين بيانو كفاقو تامو هون أعدني جنات عدن تجري من تحت الأنهار ما هي الحجر مولا كفاقو لبول بتكونك جوح لين خول يوخمنا سين خول دي تالي نح خمنا أنا ألا دفع تقتي خول بروم مرة الخوال دفعنا ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيفيكم تبخلو ويخرج أدخلو waaye sëriñ tuba ecta italien suñ bo musal la ci loolu seen li ñu nangoo nangoo joxe yi ñoo ëppoo sa ji kon nañ xam ne joxe du tax ñàkk ndax suñu borom moo wax ne euh, lépp loo jëf ngir rek naa fi wutal lu ko ëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Euh, sëñ Cheikh Abdou Hakim moom it mu ngi fi mooy liggéey jàkka ji ak centre de santé bi euh, taliyaa bi di mbooloom murit yooyu nga xam ne ñoo dajaloo di liggéey. daara alxuraan ji ñoom it ngi fi tambalé nañu ñenti bâtiment Touba ca kanam itam ñi ngi ci majalis bi ñi ngi fi def benn bâtiment kon danaka lolu boko bolé warna mat fanweri bâtiment man fanweri bâtiment yo xam moy nek phase bu ñëkk bi té lolu dañ ko bëgg def ci ñaari at inshallah rabbi nga xam bu ko yalla dogalé bu loolu antoo euh, des nañu des na mëna dalo université bu ko defee nag mu des euh, mu des euh, université wàllu agronomie bi ak wàllu métier yi ak leneen li des ci ci euh, université islamique bi nga xam ne kon lépp war naa toll juróom-benn fukki bâtiment wala boo ci boolee restaurant yeeg yëpp daal kon sëñ bi ci tënk loolu mooy mooy liggéey bi fi ñu ci toll xanaa jeexal ci sant rek di leen ñaanal ngeen yàgg fi te wér te euh, ba nu daloo ko euh, ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi te wér ba nun ñëpp nun ñëpp nu ànd ko euh, mu egg ak jàmm nu daloo ko waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala